Robel 2 Robel 2 mbokk yi arbitre bi sifflé na moo ñu woon ginnaaw Thiatou Aïda lañ jàkkaar lool ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar non xanaa xale dañoo tolloo. Robert 2 à gauche Thiatou Aïda à droite. eh ba doxay daan daanu na jeex na jeex na laay kan moo daan Robert da doo kuubu dal daw jël ko oh vite bien fait Thiatou Aïda Thiatou Aïda daan Robert Kouba dal Kouba dal déggoo wax laay des bu la dooyee ku sa xel maay dem vite fait bien fait ay xale bu ñu entraîné dañu ñëw bëre daan jóge fi daan na ko jël bu rëy waay caatu fooraa ngi noonu dugg si jigi géew bi aca mbokk yi bàyyi xel euh, tey Habib l'écran moo ñu fi woowoon combat bi doxoon ci diggante caatu ayda ak ki nga xamante ne nii mooy booy naka. Robel Robel nuyu naa. maa ngi caatu ay day ziar caatu naa. waaw ziar naa lu baax alhamdulilah am nga taw fee. waaw sant yàlla bu a baax gaay. combat bi waaw combat bi maa ngi sant yàlla baax di gërëm waa Joal Fadiouth di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla gërëm fu mu jógee ñaanal sama yaay bu baax di ñaanal waa Joal Fadiouth ñëpp di leen baalu àq nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp parce que taw bi moo tax ñu bëri ñëwul taw baa ñu bëri ñëwul mais combat bi wax dëgg fa yàlla ah, lu ma entraîné rek la may bëri dama ñoo répété ñoom dimle ñoom góo ñoom Modou Ngom ñoom a gars yooyu noonu du ma entraînement lu métti métti wax dëgg fa na na ma boo àggee bëral li doxal nii yo yo am ndam ñëwal ci li nga bëree laa soxla waaw su ma bëree dafa dox sama kaw mu dox sama ma ñam mu ma jël ko mu jeex moom moom man moom bëri moom kenn du ma ko jàngal naa naa daa wax da lay dóor ngeen jox am jóob joxal njaay waaw ma dóor ko mu kaw nga fekk ko fa yegg waaw ma eggale ko dóor amul njëriñ daa ma daa ko rek moo gën a sedd quoi moo ëpp njëriñ quoi ay eh, dóor moom yii nii foo jëm man si kaw mooy ñaan ay tafla bi ay ay talfa nekk fii di wax ay Pokola na ma leen jox. talfa Pokola waaw. ni ma na ma leen jox nee na sa avancé taxawal bi Dakaru Ndiaye. waaw dóor mu daanu. waaw daa mën a xeex ko dóor mu xeex mbedd nga daa ay dóor mu daanu. dóor mu daanu waaw dóor soxor. waaw xeex mbedd la xeex. xeex bi boo jàkkaarloog moom. bu xeexee bu bëggee ñu teg amul amul songo ma dóor ko mu tëddal boppam waxuma la caaxaan waxuma la caaxaan. dóor ba mu tëddal boppam daa mel ni mu ngi ñëwaat ci laam de ku ko fi indi woon la sañaati bawal. dóor ba mu tëddal sa bopp. waaw ko sama ko sama grand la maa ko nuyoo passage sama grand la Tafa waaw a baax. cant ak ngërëm. ate gërëm naa leen bu baax a baax sant ñëpp gërëm ñëpp yàlla defal ñëpp jàmm salaam alhamdulilah. ayca